président Macky Sall ak lu ñeel troisième mandat gi nga xam ne rek moom moo nekk ab débat ci Sénégal ku nekk di ci yàbbi ndax li mu waxul waaw newul déet comme ni ñu koy titré rek ni wii nii non président Macky Sall nag kenn déggu ko benn yoon mu yey ci yàbbi waaye bu ñu xoolee ñi nga xam ne rek ñoom ñoo nekk ci ku kujje gi tayu ñu ci di dànkaafu nguuru ko Macky Sall ah, ci jeexal rek dem 2024 dara du ci topp bi mooy nekk dernier mandat du ñu ko nangul ñeneen kon duñu ko ko nangul na fexe ba bu mu ko jéem comme ni ko mouvement Y'en a marre dal di taxawalee ba noppi rek daal di yëg di seen ay kàddu jëmale ko ci président Macky Sall tax ñu daal di cay ah, sampablaaj jëmale ko ci Serigne Mbaye Thiam di ministre bi ñu dénk wàllum o ak assainissement moom mi nga xam ne gisoon nañu ko ci jamono yi Abdoulaye Wade muy xeex lépp lu jëm ci wàllum troisième mandat waaye euh, bi la yoon fekk ko ci nguuru ko Macky Sall ba ñu dénk wàllum ak assainissement ci noonu la ñu ko laajee rek ndax position bu mu taxawee woon ci xeex troisième mandat ci jamonoy euh, Abdoulaye Wade mu ngi ci am déet mu daan ne euh, lu tolloog fukki at ak lu ko toftal ba mu koy xeex ak léegi daf cay gën a xuus ci boobu la xeex waaye dafa fekk ne rek. jamono ji daf koo fekk mu nekk ci nguuruk euh, Macky Sall ba ñu dénk ko fa loo xam ne rek euh, moom moo jëm ci wàllum eau ak assainissement maanaam dañu ko ca takkal ndombol tànk kon am na ci euh, position yoo xam ne du ko jël wala muy wax ci lu jëm ci troisième mandat bu président Macky Sall lu dul ni ko rek daf caa wax ak ay supérieur am ci politique la ñuy desandi ci jamono ji nga xam ne rek nit ñaa ngi xeex lu jëm ci wàllum troisième mandat opposant bi ñu jàpp ne rek moom moo gën a mag ci Sénégal wala opposant bi nga xam ne rek moom moo gën mën a taxawee position daal di wàcce président Macky Sall mu di Ousmane sonk ci jamono jooju moom mu ngi dugg ci réewam di Sénégal xool kanam comme ni mu ko waxee rek ci am nemmeeku tur boo xam ne mu ngi koy amal ngir dal di dem xool yi ndaka lay def ak ki nitam bay waajal lii di présidentielle yu deux 2024 coowal Malick Gakou ak Gaston Mbengue euh, dal dinay doon coow loo xam ne rek ku nekk nga ciy di yàbbi waaye Babacar Touré bu Kewelo moom daal dina amal ab vidéo euh, ci ab live boo xam ne rek def na ko la mu jot a xamle moom moo di lu jëm ci mbirum Malick Gakou euh, ne ab toob la ci biir Yewwi Askan Wi moom moo di nituk président Macky Sall boo xam ne rek moom moo ko tegal ca Yewwi Askan Wi ngir di koy nettali nee na moom moo ko fi njëkk wax lu jiitu Gaston Mbengue di ko fi wax te booba sénégalais yi bàyyiwu ñu ko woon xel nee na li Gaston wax kenn nu ko weddu lu dëgg la Malick Gakou ci boppam rek dafay liggéeyal euh, président euh, Macky Sall. lu jëm ci coowal passeport diplomatique ginnaaw lu weesu euh, Boubacar Biaye ak Mamadou sàll ñeneen yoo xam ne jotoon nañu leen teg loxo lu mat at ak ay weer yoo xam ne rek coow laa ngi mel ni tuleeg màlle Euh, ci lu jëm ci wàllum trafic passeport diplomatique yoo xam ne jotoon nañ caa dal di teg ay loxo ñoo xam ne ña nga ca ministère ak euh, ministère des affaires étrangères ak euh, li nga xam ne rek moom moo di présidence bu ñu sukkandikoo ci bile xibaar tey lañ leen doon atte ca tribunal bu Ndakaaru li nga xam ne rek moom moo di coow loolu division des investigations criminelles jotoon nañ caa dal di def ab liggéey ak ay infiltration yoo xam ne rek jot nañ ko caa dal di amal ngir am ay preuve bataax Limamou Laye Seck nekk ak adjudant chef Mamadou Lamine Ba mi nga xam ne jot nañ leen caa daal di incriminé moom lamin Ba moom nag ndaka la doon def ngir rek daal di dugg ci boobu lépp trafic passeport diplomatique cay ay document yoo xam ne rek nekkul ko lu légal daf ko doon sërëxal ci yenn document yoo xam ne daf ko doon transféré waaye ba Badara Sambit tudd nañ ko ci bu ñu sukkandikoo ci libération ki nga xam ne moom moo di Mahmoud Saleh nekkoon ku jege lool président Macky Sall ndax moom moo nekkoon chef cabinet bu président Macky Sall moom itam tudd nañ ko ci mbir mi moom mënul dem wuy ji ab avocat mooy wax ndax na am na ci article boo xam ne dafa daal di protéger ki nga xam ne moom moo di Mahmoud Saleh ba tax du mën a dem ca tribunal ngir dem la yooyu ji ak yoon li ñu koy toppe toppee doon coow loo xam ne nag sénégalais yëpp yàkkamti nañu ñu daal di koy atte ngir ñu mën a xam ana yëf yi la moo ko undu ci loo xam ne rek saa bu ñu xëyee di ko dégg mu di coowal trafic passeport diplomatique Ndeye Khady Ndiaye amalati na ab live ci ak dundam ngir daal di eh, wax nag coow li fan la ko toll mu di coowal Sweet Beauté gi tax Sénégal yëpp dal di koy xam te coow li li ko waral mu di viol boo xam ne Adji Sarr moom la daal di jiiñ Ousmane Sonko depuis boobu ba léegi nag at ak ay weer yoo xam ne fukki doomu ak ñeent jot nañ ca ñàkk seen bakkan te ñu ko Ndeye Khady Ndiaye nag nee na dafay sàkku yoon daal di ciy def liggéeyam mën ko àtte ci nu mu gën a gaawee ndax moom mu mën a setal deram ñu setal lépp loo xam xam ne tukkee na ci loolu lay coow mën a xam fan la dëgg gi feccee mu daal di cay teg na rek bu buñ ko àttee ci àtte bu jaar yoon gàcce dana bari ndax dossier boobu nga xam ne rek moom la aji Sarr di jiñ Ousmane Sonko li ci lëmasu dafa bari mu daal di nettali ci ndox teelu coowam loolu nga xam ne rek jotoon nañ kaa yóbbu ca section de recherche mu ne fukki million ak juróom yu ñu ko fa jox mu ne ci dossier boo xam ne rek dara amu ca lan lañ cay joxe fukki million ak juróom waaye mu ne bëggoon koo tàqale ak doomam dunduloo ko méttit boo xam ne rek kenn mënu ko nettali ci lu ñu ko bëggoon waxloo mu bañ mu daal di cay teg rek ne moom Ndeye Khady Ndiaye du boo xam rek dañ koy corrompre dafay xool digganteem ak yàlla te mu yàkkamti ci dossier bi rek moom moo di ñu daal di koy atti su boobaa dana mën a setal boppam ci ay tuuma yoo xam ne rek ni ñaa ko koy tuumal ci loo xam ne dara amu ci ci coow li nga xam ne rek lu jig njaag Adji saar moom mooy njaag coow li nga xam ne moom mooy def buzz vidéo yu viral mu di ñaari xale yu ñu seen ci kaw terrasse mu mel ni dañoo tàmbalee xeex nes tuut ñu gis xale bu góor ba di tekki tubayam doon vidéo boo xam ne def na buzz te ñu bari yaakaaroon ne xale bu góor boo dafay violé ku jigéen ka taxoon ñu partagé boobu lépp vidéo di wax ne kan moo xàmmee kii ba ñu doon laaj sax ana kan moo filmé boobu lépp vidéo coow la mujjee jël beneen tournure ñoom ñaar nag ab couple la woon dañu doon génn ci ko am 16 ans ak 17 ans bokk benn koñ ñoom ñaar nag coowal firange moo dox seen diggante ci xale bu góor bi daf doon fiire ku jigéen gi ba noonu la ko doon dóoree ci kaw terrasse boobu li taxoon nag muy tekki tubay ja papa ja daal dina koy expliquer ne ah, daf ko doon dóor ci ab ceinture am moo taxoon mu doon tekki tubayam yaay xale bu jigéen beet ah, nee na ah, lu ko métti bi mu déggee ne dañoo àgg ci doomam te dara amu ci ndax mujjee nañoo dem ci l'hôpital waaye yëf yi ci kanamu yoon la mujjee ndax ba mu demee di ko kalaame ji ca yaay xale bu góor ba def na ko yóbbu ma fa mba xana doone benn bu ñu àggee boo ma woowee dinaa la wuyu loolu tax nag mu mer ba daal di ko yóbbu ci kanamu yoon waaye daal di ne auto procureur bi daal di auto saisiru ci cybercriminalité gi nga xam ne rek ñoom ñoo daal di mujjee teg loxo ah, ma joojo mi doon def jooju lay jëf di xale bu góor ah, bi doon dóor xale bu jigéen bi waaye tam jànk bi nga xam ne moom moo doon filmer ah, vidéo boobu yoon tegaale na ko ci loxo ba ñu mën a àtte coow li mën a xam fan la dëgg gi féete Youssou Ndour dafay inauguré imprimerie bi nga xam ne rek lancé na ko liggéey ba tàmbali woon a ak ay weer yoo xam ne mu ngi ci woon boobaak tey jotoon na caa sax yee yàbbi wala doomam jëlee di Birane Ndour am na lum ci jotoon xamle ne ab imprimerie bu ñu fas yéenee taxawal Sénégal ca Diamniadio tey la ñu ko doon inauguré ci mbooloo mu fa teew famille Ndourène ak seen ay am di jàmm yoo xam ne rek jot nañu fa teew ngir ñu dal di tàmbali boobu boobaleb liggéey boo xam ne moom Birane Ndour ceenam ko le woon ay milliards lañ ca dugal ngir mën a taxawal lu ñu dal di jeexale xibaar yeeg lu jëm ci wàllum tàggat yaram ak coupe d'Afrique des nations choc euh, bi nga xam ne euh, bi choc bi nga xam ne Sénégal moo ko daal di jël te ñu doon ko amale ci Mozambique ginnaaw coupe d'Afrique des nations bi nga xam ne Sénégal jël na ko ci lu yàggul dara diggante diggam ak Égypte ak coupe daal dinay duggaat Sénégal mu di euh, coupe d'Afrique des nations bu choc yemuñu rek di jël boobu lépp coupe waaye Sénégal itam am na ci ñoo xam ne seen ay joueur jël jox nañ leen ay raaya euh, mu di Magnon Diagne di meilleur euh, buteur euh, mi nga xam ne moom mooy sol numéro 10 bi nekk itam meilleur joueur attaquant bu Yoff Bichok moom Magnon Diagne moomu itam jox nañ ko ñaari raaya All Seydi Ousseynou Ndiaye moom itam moom moo nekk meilleur gardien mu doon mbégteeg bànneex ci sénégalais yi ginnaaw ah, bu ñu tegalee di jël ay coupe d'Afrique ci ah, Afrique mbégte la ci kanamu président de la république waaye itam ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk wàllum tàggat yaram nee na ñoo am nañ mbégte bu baax a baax ci lancé bi nga xam ne rek moom la gaynde yi Sénégal yi nekk jamono ji ah, lu dul rek seen mbégte li koy gën a yi moom moo di ci coupe du monde bu ñu jëm Sénégal dal di jëlati ab coupe andil leen ko ci réew mi di Sénégal mbokk yi ñu doon teewlu ci net bi TV Sénégal fii la ñuy yemandeek yéen ci tey jataayu xibaar bi ëllëg la ñuy àndaat ak yéen jaa ñu fanaan jàmm.